di dellu di sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonente bu tëdd bi Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alayhi wa sallam tey nag dañ leen di ànd ak yéen ci uh, xutba al cheikh docteur Mouhamed Ahmed Lo ci kàddu gi ñu fàttali leen numéro yi ngeen di dégloo rajo bi ci seen portable te mooy deux cent treize quatre cent quatre-vingt-treize zéro un trente-quatre two one three four nine three zero one three four kon mbokk yi du ñu def dara lu déglu cheikh yi incha allahu rabbi wa jazakum allahu wa anna xayra tafaddal mashkura alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala bokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk suñu bopp ragal suñu borom tabaraka wa taala ñu xam ne bokk na ci pieds yi gën a mage muy kenu yi gën a mage ci tabax aw askan ak tabax société lu jëm ci jàngale ak yar jàngale ak yar mooy tabax aw xeet jàngale ak yar mooy tabax civilisation mooy tabaxit société jàngale ak yar mooy jubbanti jikko mooy sellalit bakkan jàngale ak yar mooy tax mébét yu sell yi nga xam ne askan yi moom lañuy ñuy jubluwaay yi ak bëgg-bëgg yi objectif yi nga xam ne ca lañ bëgg a àgg jàng ak yar mooy yoon wa ci jëm xeet wi nag muy xeetu jullit wala bépp xeet wu mën a doon lu jiitu ak leerug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay njàngaleem di agsi ci ñoom ñu xam ne xeetu lislaam rawatina xeetu arab yi ci ak lëndëm kër yi ci lañ nekkoon lëndëm koo xam ne ay caaxaan ak ay ko ay lorante ak gëm yu taxawut loolu rek moo fa nekkoon mu nekk xeet woo xam ne amul woon benn objectif boo xam ne moom la doon visé di dox jëm ca nekk xeet wu sànku xeet wu réer ci ak ceddo xeet wu mën a boddi ci biiru xeet kenn ku nekk di manquil sa moroom ci wàllu askan gëm ay caaxaan gëm ay mbir yu taxawat ci ay xar nga yu ko nuru kenn ku nekk di doyalal sa moroom nekkit xeet wu ñàkk effet ak jeexital ci xeet yi nga xam ne ñoom lañ dendaloon ba àggoon ci sunu boroom tabaraka wa taala mere doom doomu aadama yi nekk ci kaw suuf ba mu des lu néew yonent bi sallallahu alayhi wa nettali nañu ko ci saxiifu muslim nee na sunu borom dafa xool waa suuf kon loolu jiitu na muy doon ab yonent dafa xool waa suuf mere leen ñoom ñépp muy arab ya walla muy ñeneen ña arab nee na ba mu des ay benn benn yu néew yoo xam ne ci ahlul kitaab lañ bokkoon doon ay labbe yu beru fële di jaamu seen borom ñooñe ñu néew ñooñe képp ñoo muccoon ci merum seen borom ci jamono yooyu yonent bi ñëwagul sallallahu alayhi wa sallam ci biir melokaan wu mel noonu la yàlla yebale ab yonentam ci yërmandeem ngir mu génne nit ñi ci lëndam googee yóbbu leen ci ak leer moo tax sunu borom tabaraka wa taala nett li ko ne yàlla defal na jullit yi xéewal xéewal googu mooy lan nee na mooy yónni gi mu yónni ci ñoom ab yonent boo xam ne ci ñoom la bokk nekk doomu aadama mu di leen jàngal alquran di leen jàngal sunna di leen sellal di leen yar donte ci ak réer lañ nekkoon mu génne leen ca réer gu biir yóbbu leen ci ak jubbanti ko kon loolu moo tax yonente bi sallallahu wa sallam bi mu dikkee mu nekk ab jàngalekat nekk itam ab yarkat yar saxaaba ya radiallahu taala anhum ab yar bu mat jàngal leen am njàngale mu rafet diir bu gàtt mu ne genn menn mbooloo muy benn génération genn maas boo xam ne amul moroom ci àdduna amul morom ci àdduna ba sunu borom tabaraka wa wax wax leen ko te leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéen xeet wi gën ci xeet yu ma a génn ci kaw yar ak jàngal goo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa def na leen ko mu de leen tax dangeen di digle lu baax di tere lu bon gannaaw boo xamee ne da ngeen a gëm yàlla ci jullit yi soppiku bu gaaw boobu am ci xeet bi nga xam ne moo doon xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy saxaaba yi ba ñu yëkkati ko ci fu suufe fi ñu nekkoon yëkkatiku ba mel ne ay montagne adduna ak giiram ku leen gisu tit nga di leen dégg loolu lépp li ko indi moo di benn méthode boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la tegoon ci lu jëm ci jàngale ak yar metod bu jëm ci jàngale ak yar ak woote jëme ci lislaam méthode bu leer bu mucc bu baax méthode boobu nag dafa am ay melokaan am ay mandarga yoo xam ne jot na ci ñi nga xam ne ñoo yittewoo jàngale ak yar ñu jàngataat ko jéem ko gëstuwaat ba xam am njàngale bu mën a génne nit ku tekki dara akub yar bu mën a génne nit ku tekki dara ci gan anam lay amee ndax nee nañ noo ngi toll ci jamono joo xam ne xam ngeen li tàmbalee le vingt sept ba ci le quatre bii ab semaine la boo xam ne nee àdduna ci la ñuy fàttaliku lu jëm ci wàllu njàng boo dégloo chiffres yi ñuy tudd ci wàllu échec boo xam ne jàngale ak yar am na ko ci àdduna yow da ngay tiit te daanaka kenn ku nekk fa nga nekk sax la ngay teg sa bët rek doy na sëkk aji ay chiffres yoo xam ne keneen na la koy wax kon jaadu na góor ñi nga xam ne ñoo jóg itti woo wàllu jàngale ak yar ci xoolaat li ñuy jàngale lu mu doon ak ni ñu koy jàngalee nan la ak ban xeetu doomu aadama lañ bëgg a tabax ëllëg mu doon koo xam ne kuy amal njëriñ seen société lay doon kon tànn nañ ay tomb yu néew ci méthode bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la tegoon ba diir bu gàtt ci ñaar fukki at mu génne maas boo xam ne nangu nañ ne ci àdduna ñeneen ñu melaat noonu amaatagul ba léegi tey du amaat ba ca jëkk moo di taabidu nnaas li rabbil alamin metod boobu li ko tax a jëkk a jóg dëgg dëgg dëgg mooy doomu aadama fu mu nekk fu mu mën a doon ñu teel ko yar jàngal ko mu sax ci xolam ne moom mii jaamut yàlla la boo xam ne li muy wut ci kaw suuf mooy jaamu yàlla te li ko fiy jariñ dara mooy mu am ngërëmul yàlla kooku mooy tomb bi nga xam ne moo war a jiitu ci yar bu ñuy teg bu nekk ak njàngale mu ñuy teg mu nekk loolu nag yonent bu yàlla ma a yónni bu mu mën a doon wàllu pas-pas woowu fi la tàmbaleeg yow kon ñoom ñëpp ñoo ko bokk ne dari nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fañ ko yónni woon dafa nekkoon ci ak lëndam ak i xiram ak i caaxaan la mu am ci woote ci pas-pas door a jëm ci leneen boo ko xoolee da gis ne lu yàgg lool la tawxiid muy wéetal sunu borom tabaraka wa taala mooy li nga xam ne moo tax yàlla bind doomu aadama yi waaye da ko bind itam ci ñoom nga xam ne ba ñuy juddu te yàqooguñ tawxiid lañ indaale woon ba kër ñu leen di yàq comme ni mu saxee ci ay xadiis kon saa boo xamee ne teg nañ ay méthode ak i programme yi njàng yoo xam ne tawxiid moomee ak jox sunu borom tabaraka wa taala xaqam nekkatu ca xamal ne su boobaa balance bay peese doomu aadama ji ngir mu mën a génn doon ku mat booba balance ci boppam yàqu na jikko ya dana yàqu valeur yi nga xam ne moom lañ doon wax yépp dafay yàqu su fekkee ne tawxid jóg na fa rek lu am njariñ duutu fa des ndax tawxid bu dikkee mooy defar xol ba te xol bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ne su baaxee lépp lu ñëwati ci waajoo ji di borom xol bi day baax waaye su ca dara sikkee wala mu yàqu lu ñëwati dara bu baax kon koo koy tomb bu njëkk bi ci méthode boobu mu teg ñaareel ba moo di fexe ba nit ki ci boppam objectif am bi ko tax a jóg yéeneem bëgg-bëggam ci programme bi mu teg ci jàngale ak yar moo di am sellu gi yéene am sellu pas-pas ca bëgg lépp boo ko seetloo ba mu jeex mu doon lu baax waaye it muy dox ci yoon woowa ndax sàkku xam-xam te caaxari kete rek tax rawatina xam-xam bu jëm ci diine kooku danger la boo xam ne kuy jàng diine ku ne sax war nga ko wattandiko ndax yonent bi sallallahu wax na ko nee na ku sàkku xam-xam boo xam ne xam-xam bii lu ñu war a sàkkoo ngërëmul suñu borom la mu dem di ko sàkku te fekk àddina kese rek la ci jublu nee na kooku ëllëg xetu àjjana du ko xeeñ yàlla na yàlla musal ci loolu bu dee xam-xami àdduna yi yéene ji bu sellee nga xam ne ka koy sàkku la ko tax a jóg mooy jariñ aw askanam jariñ société am yëkkati aw xeetam ba dootu féete woo di tàllal loxo waaye day mën a tàllal di joxe su fekkee yéene joojo ko tax a jóg la chaque ne kooku daf cay am ab yool ab yool ndax yéene ju baax a baax la kon njàng moo xam njàngum diine la wala njàngum lu jëm ci àdduna la wut métier rek taxu koo jóg waaye yéene ju sell ja ne ca gannaaw su métier ba ñëwee rek day ñëw doon loo xam ne lu baax la ndoon leen lay doon lu baax waaye du yéene ja su fekkee loola mooy yéene ja kese kese kese wala loo xam ne danga bëgg yow ci sa jëmmi bopp sa jëmm rek jariñu waaye yéene waale woo ci sam xeet saw xeet yéene woo ci sam réew kon soo sa yéene suufe na te itam sa tuyaaba néew na ndax da am dara ci tuyaaba gannaaw yéene jooju bokk na ci mandargay méthode bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale di ko yare moo di ne xam-xam day ànd ak jëf bu mën a doon xam-xamu diine day ànd ak jëf xam-xamu mu jëriñ day ànd ak jëf dafa ñoo ne xam-xam ci boppam garab la meññet ma mooy jëf ja garab gi soo amul meññet amul njëriñ wala njëriñam du bari boobu garab gi nga xam ne da ko jëmbatoon ngir meññet nga xam leneen taxul su demee ba war a ñor te ñorul bu boobaa googa garab amul njëriñ xam-xam nag noonu la mel moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan jàngal saxaaba yi lu mu leen jàngal ci xam-xam da leen di jàngal nu ñu koy jëfee ñu doon ñaar ñu ànd ñoo xam ne mënuñoo taqali ko muy xam ak jëf bokk na ci màndarga yooyu moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jiwoon na ci ñoom ngi yëg ne xam-xam boobu dafay continuer sàkku xam-xam istimraariyatul amaliyati taalimiya moo di ne ki xas dugg ci sàkku xam-xam di ca góorgóorlu amul fu muy yem foo xam ne day dem ba wax ne pare naa ci lii loolu amul loola nag lu am solo la ci jàng jàng xam-xamu diine ndax amut fooy àgg du diplôme du lenn loo xam ne danañ ne àgg nga fa ba nga war ne man léegi li ma doon sàkku ci xam-xamu diine xam naa lépp li ma dese mooy damay dem toog déedéet loolu amul ci diine foo toll da ngay dolli ko xam-xam yonent bi nga xam ne moo doon yonent bi sax yàlla di wax yi ci moom di wàcce ci moom alquran daf ne ko wa qul rabbi zidni ilma foo tollu del ñaan di wax ne yàlla yàlla nag ma dolli xam-xam kon xam-xam amul fu muy yëpp te kooku mooy yonent bi bu dee xam-xam adduna itam kenn ku nekk xam na ne ci jamono la nekk joo xam ne lu waay mën a jàng filière bu mën a doon ci adduna mu nekk ci spécialiste xam na ne amul fu muy àgg ba yem kon fu mu toll ku nekk laaj na di jàngaat di dem ci ñu ko raw di def ay séminaire di dajewaate ñu ko ëpp xam-xam di dolli lu bees loo xam ne xamu ko woon kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawoon na yàgg yàgg programme yi méthode yi ñuy teg pour di ko jànge parce que xamaloon na nit ñi ne xam-xam bi ci boppam moo xam bu àdduna la moo xam bu diine la amut fu muy yem koo xam ne da jàng ba mu yàgg nga ne taxaw naa ndax saa boo taxawloo rek da ngay daal di tardé boo taxawee rek tardé ndax xam-xam doonut lu baaxoo taxaw benn day dox jëm kanam wala mu dox jëm gannaaw xam-xam yépp ne waaye taxaw moom mënta nekk bokk na ci yi nga xam ne moo di méthode bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg wala méthodologie bi nga xam ne moom la tegoon alayhi salaatu wasalaam ci wàllu jàngale ak jàng moo di ne du caagi ne école ba rek moo di jàngukaay du caagi ne jàkka ja rek moo di jàngukaay waaye mboolem force yi nekk ci biir société bi dañoo war a jóg taxaw di defar maanaam di jàngale xale bi walla mag mi ni muy jàngee ci jàkka ji noonu la war a jàngee ca daara ja noonu la war a jàngee ci kër gi xale bi nekk noonu mbedd mi sax dafa war a jàngale médias yi nga xam ne moom la ñuy jëfale jëfandikoo sax di jàngalekaay la ñu war a nekk moo tax réew yi nga xam dañoo xellu seen programme yi nga xam ne dañ ko bëgg a jàllale ci askan wi tam doon bu am njëriñ ci wàllu développement ak wàllu xalaat yu baax ci seen média lañu koy jaarale mu doon ay jàngukaay lu gën a bari nag tey média yi nga xam ne dañuy taxaw amuñu ab jubluwaay boo xam ne ci tabax xeet moom moo ko tax taxaw lu ci bari bari li ko tax a jóg mooy benn yàq xeet wala mu def si boppam loo xam ne bu yàquwut it daanaka duutu xam fu mu jëm bokk na ci méthode yi te bokk yi ci ëpp solo moo di ne jàngale ak yar dafa war a am programme bu mu tegu boo xam ne dafay dëppoo ak bëgg-bëggi société ba ñuy jàngal di ko yar société boo dem bu ne am nañ seeni pas-pas am seeni culture am seen xeetu xalaatiin woo xam ne soo bëggee am ndam ci li nga xam ne moom nga leen di tegal ci programme da ci sàmmoo ak yoo sàmmonte ak yooya danga nga gisit ne boo dem bu ne am na yuñ aajo woo nga xam ne moom moo gën a ñor même bu dee ci wàllu àdduna bi moom lañ gën a soxla yow mi leen bëgg a jariñ yooyu ñu gën a soxla faaw nga teg programme yi yoo xam ne yii ñu aajowoo au lieu ñu koy jéggi feneen nañ ko jàng ba mën koo jëriñoo foofu nag la ñuy gisee ay njuumte yu bare bari yoo xam ne dafay faral di am ci suñ programme yi jàng yi nga xam ne ñu ngi koy teg te bàyyiwuñ ci xel yi nga xam ne mooy aajoy réew mi mooy aajoy askan wi programme dëkk bu mel ne dëkk bii nga xam ne dëkku mbay la dëkku càmm la dëkku géej la dëkk la bu yàlla jox ab jant dëkk boo xam ne bu dee ci wàllu mbay joor yi gën a sàlli ca la ko yàlla jox nga xam ne boo ko dee bay doo ñëw di dajji ay montagne wala nga di ca sonn nga ñëw ci wàllu sàmmukaay gis ne ay dénd déndi suuf yoo xam ne ay gott la yoo xam ne bu tawee ñax ma sax boo arrosé ñax ma sax yu mel noonu lañ am ci wàllu càmm nga xool gis ne dëkk booba géej a ko wër géej ya gën a mage ak dex ya gën a mage ñoo ko wër ci wet bu nekk nga xool gis ne bu dee ab jant at mi yépp jant bi day xëy di fenk ci dëkk booba la chaque année dëkk bu mel noonu am na koom mu bari moo xam ne yàlla daf ko ko yoor nga xam ne li des rek mooy mu wat waaye nag ànd ak ne lu métti la malheureusement ni ñu koy waxee nit ñi gorose seen i loxo ne fa suñu yéene wat dañuy toog rek keneen defar fële bu wattee moom ba àggal bu lekkee ba am aw des itam mu ñëw jox ma mbokk jullit yi liñ doon séntu ci environnement bu mel ni bii moo di nëga ni waxuma ay ay faculté ak ay institut ak yu mel noonu waaye ay université taxaw yoo xam ne li ko tax a jóg képp mooy gëstu ci mbay kese yoo xam ne li ko tax a jóg kese mooy gëstu ci géej gi yoo xam ne li ko tax a jóg kese mooy gëstu ci naaj wi ak nan la def ba génne ci énergie ba mën koo jariñoo ay centre de recherche yu mag yoo xam ne lañuy liggéey ci loolu lay jëm mbokki jullit yi buñ yaakaar mukk ne nit ñi dañuy toog faste seeni loxo Occident jóge fële tegal leen ay programme yoo xam ne dañ koy paqueté rek ñëw tegal leen ko noonu ñu mën koo jël di ko jàng ci seen université yi mu mën leen a génn ci ak ñàkk mën leen a génn ci ak aajo ba du fi ñu ko tàllal loxo moom déedéet loolu buñ ko seetoo duñ ko gis suñu dee andi programme yuñ paqueté programme yooyu loo seenu làkk lay doon nga xam ne da nga mën a fexe ba xarañee ko lool bu foo taxaw di ko làkk dañ naan ah kii de dafa mel ni moom daa bokk ci ñoom waaye nag boo xoolee loola lu muy jëriñ ci réew mu mel nii ak lañ soxla ci énergie ak ci wàllu développement mu wër ne làkk doomu ak làkk wa ngay làkk wu mën a doon loola doy suñu dee ñëpp dañ ñu yëpp loo xam ne daf ñuy jàngal seen civilisation seen aada seen cosaan seen i gëm-gëm ak seen jikko yu yàqu sax faf kon suñ toogee di séentu lu mel noonu duñ ko gis ndax kat ñoom it dafuñu xam nañ ni yi nga am yow mu doon ay source yu mag yoo xam ne boo ko exploité duutoo ko soxla moom yooyu duñ la ci jàppale doo toog fii mukk di xool Occident gi nga xam ne ñoom dañ doon génn mënoon a am jant boo xam ne six mois képp dañ ko koy am ba ñoom liñ soxla lépp ci énergie ci àdduna ñu liggéey ko mu ni mu yor seeni réew ba duutuñu ajoo pétrole duutuñu ajoo leneen su fekkee ne ñoom lu mel noonu nga am ci yow am at mu mat sëkk bul defee ne mukk dañuy ñëw taxawal la fii ay usines yoo xam ne ca ngay defar yow sa énergie ak suñu mel noonu yow rek yaa ko mën a jàng yaa mën a def sa recherche ba mën a taxawal loo xam ne ay liggéeyukaay la li ay ay ay machines yoo xam ne ci wàllu solaire lay liggéey nga xam ne batterie yaag onduleur yaag fiil yaag yépp da ngaa fas say loxo ñu la koy liggéeyal di la ko yut noona boo yeexee sax ñu di la ko monteel keru muy sotti loola sa njëriñ lu néew a néew la cay doon te duñ la ko defal qualité bi nga soxla parce que kon mu mën a sax lu yàgg yàgg yàgg duutoo leen aajowoo waaye day war di yàqu ñuy defaraat di la jaayaat kon réew yi ndaw yi pour ñu mën a taxaw yiw bi leen yàlla jox ko faw ñu jàngi xam-xam boo xam ne ci lañ koy mën a exploité musiba ma gën a rëy nag mooy dem ba yaakaar ne méthode mën naa taxaw wala programme boo xam ne dañuy jàng te yarub diine dañ ko ci génne saa buñ ko ci génnee résultat ba mooy jullit bi boo ko gisee du ko xam ban façon nit la te nit ki citoyen bu aw yoon mooy ab jullit bu baax xet amut leneen jullit bu baax mooy citoyen boo xam ne mi ngi liggéeyal diineem di liggéeyal askanam di liggéeyal réewam waaye bu ñu sàgganee yarub diine ba la muy jur mooy dem ba suñ ndongo yi nga xam ne ñoo toll ci jàng xamatuñ fuñ jëm xamuñu njàng mi dëgg-dëgg lan lañ ciy jëriñu dañuy dem ba réer lu tax moo di dañ doon xalaat ni jàng li tax nit ki di ko def mooy mën a génn ñu jox la benn fonction nga yore ko di liggéey ñëw déposé say kayit ñu jël la ne ay sa demal liggéey bu weer dee ñu fay la noonu rek la ko doon xalaat mu doon xalaat nag bu gàtt gàtt kon bi mu demee ba gisal boppam ne ay nit a ngi yoo xam ne jàng nañ fenn fu nekk jaar nañ fi jàng ba war na aw araf ba noppi génn amuñu luñ liggéeyee kon moom yaakaaram tas na ndax bu fekkee ne fa mu bëggoon jaar gis nañu fa jaar ba génn ba noppi amuñu liggéey kon yaakaar gi tas la koy jural lu ko sës mooy nga mën a gis ay ndaw yoo xam ne dañuy dagg seenum njàng dem dugg ci géej gi nañ koy waxee ca mbëkk ma ndax xaalis la doon xalaat ne moo ko taxoon a jóg te yaakaaratu ko fii te am na feneen koo xam ne donte dafa jëm fu xamut dafa jëm koo xam ne dee xaj na ca sax waaye kooku la ëppee yaakaar mu dal di jublu foofu bañ yaakaaree ne objectif bi nga xam ne moom la ñëpp jëmoon mooy ni ñuy def am alal mu dem ba tasaaroo ci xeeti nit xeli nit ñi ñu ne alal kat di su ko liggéey waaye dañ koy lijjanti nit yëpp daal di wëlbatiku xalaatatuñ ne dañoo war a liggéey dañoo war a jëmale am réew kanam waaye ñu jàpp ne ñëpp dañoo war a xëy rek di lijjanti lijjanti goo xam ne lépp ay pexe lay doon ay njaxas lay doon ay wor lay doon ay lekk alal jàmbur lay doon foofa pas-pas bu bare bari daal di yàqu foofa kon programme yi njàng ya ba mu soree pas-pas ca lañ mën a gise ay nit ñu jàng bañ nañ intellectuel lañ ñu ku fekk koo xam ne borom xam-xam bu gàtt gàtt la waaye sol la séri yoo xam ne séri diine lay nuru mu ñëw torox la ci kanamam mu di ko nax te xamul ni kooku kuy naxe la te fekk jàngaloon nañ ko ba defee ni kii moom jàngal nañ ko ba mu mat kon pas-pas moo sori xamatul moom ban martaba la am ka muy jiitit xamut ban martaba la am mu jox ko loo xam ne la mu yooyowut ci ngay gisee ku jàng bañ ne intellectuel la ku jàng bañ ne wan naw arf mu ñëw góof ci kanam koo xam ne ay xarga fuufaak ay béjje nag ay xaaw ak ay yëf yëfaan yu mel noonu la koy jox naan ko lii boo demee def ko nii boo demee def ko nii lam yoroon mu jox ko ko bu génnee lam ko doon wax bi ci gis dara yooyu programme doonul yoo xam ne mooy defar nit koo xam ne mooy mën a taxaw diineem wala mu doon koo xam ne mooy mën a taxaw addunaam mbokki jullit yi jafe-jafe yi jafe-jafe yu taxaw yoo xam ne su ci askan bi bëggee génn faaw ñu delloo si waat njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa tabax nit ñi waaye tabax leen ci jom tabax leen itam ci nangoo liggéey tabax leen ci yëtte ju yëkkatiku ba weesu yow nooy ame nooy amee kër nooy ame oto nooy amee nangam waaye nooy liggéeyale sa askan ñoom bañ mën a am bay dimbali ñeneen itte jooju dafa war a nekk ci xeli ndaw ñi nekk ci xeli mag ñi nekk ci xeli ñi teg programme yi ba loola ca la réew ma di mën a jóge kon suñ jikee bay fàttali ko waxtu wax ne waxtu njàng la ñu ne bu dañuy xoolaat programme yi doon teg ci àdduna di ko jànge fan la ñu war a mën a jaar ba xettaliku ba xettali ndaw ñi kon jaadu na nu yëg ne responsabilité bu yaatu la nag bu yaatu la ngir nu mën a faj jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund kenn ku ci nekk am nga ci sa waar woo xam ne war nga ca def lépp loo xam ne loo mën ci nekk waajur yor ay doomam yoo xam ne dañuy xëy di jàngi kooku lépp loo xam ne gis na ne manqué na ca école ba moom war na ko jéem a mottali ci kër gi moo xam ci jàng mi la ci njàng mi la moo xam ci yar bi la béréb yi nga xam ne mooy bérébu jàngukaay yi itam jaadu nañu xoolaat programme yi nga xam ne moom la ñuy teg di ko jàngal nit ñi xool li nga xam ne mooy la am njariñ ñi di ko jàng li nga xam ne amul njariñ te dañ koy jàng loolu ñu seppi ko ca ba mu set ca wecc su fekkee daal noo ngi séentu ne dañoo bëgg a tabax ak maas ca kanam goo xam ne bu dikkee dox bu gaaw bi àdduna di dox dana mën a ànd ak moom laajaat nañu tabaxaat keneenu nit ku bokkut ak kii nuy gis tey ndax kat jamono yi nga xamee ne diini génn nañ ko ci yëf yi ci lañ gise ne lépp yàqu na ku jàng ba am lim war a am lépp ci xam-xam am ci ay compétence lim war a am lépp ñu xëy jox ko responsabilité yi alali réew mi teg ko ci sa loxo nga xëy xëy këpp ko pour sa intérêt personnel loolu jàpp naa ne eh, njàngale muy génne ku mel noonu aajo na ko xoolaat bu baax a baax a baax yar bi munu cee ñàkk yaru diine bi munu cee ñàkk taqwa muy ragal yàlla faw ñu def ko ci xool yi su loolu amut nit ki muy am nit ku nasax lay doon koo xam ne ci suufi tànkam rek lay xool lu jëm ci biiram dong lay xool lu jëm ci këram dong lay xool amul soxla ci keneen yàlla na yàlla musal ci lu mel noonu responsabilité bi yépp la nag comme ni ma ko waxee muy bàyyi ba muy école ba muy mbedd bi muy média bi nga xam ne moom la ñuy xool kenn ku ne am nga responsabilité boo xam ne boo ca taxawee lépp dana saafaru moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullukum raa'in yéen ñëpp kenn ku ci nekk ab sàmm nga wa kullukum masulun an raiyatihi kenn ku ci ne la nga doon sàmm bis dana ñëw sunu borom tabaraka wa taala laaj la ko kooku bàyyiwul kenn la ko tàmbalee ci ñi ca kaw jiite réew maa ak ñi ànd ak ñoom ak nga ca digg baag ba ci suuf ba ca nit ka ci këram ba ca surgaam ci këram doomam soxnaam kenn ku nekk am nga responsabilité boo xam ne boo wéeteeg sa borom dana la laaj li ma la dénkoon yow loo fa defoon kon su boobaa yàlla nañ fekk ndénkaan la ñu taxawoon ci def lañ ca war allahuma ansur alislaama walmuslimin allahuma ansur diinaka wa kitaabaka wa sunnata nabiyika wa cibaadaka alsaalixin allahuma aciz alislaam wa ansur almuslimin wa adil ashirka walmushrikin walkafarata almulxidin واحمي حوصة الدين اللهم احقن دماء المسلمين وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وديارهم من كل معتد ظلوم يا رب العالمين اللهم يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم ول على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم وكيد فجارهم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب العالمين وصلى allahu wasallam ala rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallam kon mbokk yi ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dëgëral ñu sunu cheikh yi jàppale leen may leen euh, wérgu yaram ak fanu gudd barkeel di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñun tamit dégg ak euh, topp wala émission bi bu jeexee ku am lépp looy laaj ci programme bii di Al Fatwa wala bépp laaj booy am jëmale ko ci rajo bi ak ñi taxaw rajo bi wala bépp gendook boo am man nga jël numéro bi moo lay waja dëgtal nga jaar ko incha allahu rabbi jottali sa laaj wala ca gendoo ko mooy 31 52 77 25 15 31 52 77 25 15 leen àndaloon ak seen mbokk Mouhamadul Amin ci micro bi Abou Khalifa ci xarala gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.